commentaire moom naa la ko bàyyi puisque moom annoncé na ay mesures correctives xam naa ne boo bëggee xam mesures correctives yi muy nekk moom lañu koy interpeller ndax propos la waaye li ma bëgg a wax mooy dama nangul ñuy wax que ñu bokk ak man làng wala ñu bokk ci sax ku gi ñu bañ a d'accord ak man ci li nga xamante ne moom lay teg comme ay bés bu ne te ñu am droit tamit wax ko que mu nekk opposition que mu nekk samay propre partisan dañu am droit am désaccord ak li nga xamante ne maa koy posé comme acte parce que dañ maa dénk lu ñëpp bokk ñëpp a teg ci seen bët war ko watu am ci seen kàddu en tant que citoyen loolu mooy démocratie ma nangul ko ñëpp nag li ma bëgg a wax rek ci coow li puisque coow am na mooy dafa am fu ñu jëlee Sénégal wax naa ko sànq ci message bi ma doon def te lu ko waral mooy wooteeg jàmm fam am fu ñu jóge am ay féewaloo avant élection njaboot gi sax biir famille ñu ne am na ñoo xamante ne ay frère ak i sœur ay waajur ak i doom waxatuñ ndax politique yàlla dogal changement régime am ñun ñu doon ñun ñu ñu doon buntu xatal di ñu teg lu ne te mu tegu woon lu dul lu dul ne bëgg a téye sa nguur ñu am matug am esprit de dépassement ki nga xamante ne bokk na ci ñi gën a sonn muy président Pastef premier ministre actuellement Ousmane Sonko taxaw Grand Théâtre ne lépp loo xamante ne def nañ ko moom ci boppam baale na ko muy jëfu jullit ndax ku ko xam-xam ne bëri na lu muy wax ne royukaayam ci wàllu politique yonant bi la sallallahu alayhi wa te lu ne teg nañ ko ko mu am doole feyu baale waaye foofu sax sori na Afrique du Sud gii bi apartheid amee ñu def seen commission vérité réconciliation esprit de dépassement Mandela bañ a fayantu moo tax jàmm am tey ba sax fa ci Afrique du Sud kon ki nga xamante ne baale na ne baal naa lépp luñ ma def lépp luñ ko def ak nu mu metti metti la ak nu kàddu gu ñaaw ñaaw ak luñ ko teg teg teg te yàlla xam na ne daj na mu amaat leneen loo xamante ne dañ ko war a suuraale ci projet bi nga xamante ne moom la ñuy jaay Sénégalais yi ba ñu jënd ko teg ñu ci kaw réew mi mooy dañ ñoo wax ne dañuy def appel à candidature ci post yi commencé na ak la commission nationale des droits de l'homme projet de loi bi ma ñëwee fekk naa ko assemblée nationale dañ ko jëlaat dugalaat ko yokk ci ci buñ koy falaat day am appel à candidature te ñu ngi ci procédure yi bientôt ngeen gis lancé nañu ko kon boobu ñoo ko ci dugal niñ ko nar a dugalee ci yeneen post waaw bu ñu ko dugalee est-ce que dañ koy appel à candidature bi day nekk kese ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñun wala sénégalais yépp lay nekk ak boor bu ñu mën a bokk waaw bu ñu nekkee ci boor bu ñu mën a bokk est-ce que dañuy wax ne képp koo xam te ne mës nga wax Bassirou Diomaye fay lu ñaaw rek mënoo bokk ci appel à candidature bi gëwuma loolu li ma gëm kon appel à candidature mën na ubbi jur ay nit waxoon ci ñun lu ñaawa ñaawa ñaaw tegoon ñu sax lu méttee méttee méttee waaye commission buy analyser dossier yi nangul leen ne ñoo gën a xarañ ñu jël leen teg leen est que bu boobaa dañuy wax ne ñii dañu doon wax lu ñaaw donte ñoo gañee nañu leen tegg fu ñu nekk gëwuma loolu li ci tegu nag mooy dama nekk kaso ñu teg coalition coalition bi ci base bi ñëpp xamoon nañ du pour man pour suñu candidat bu ñu gàllankoor la woon bi ñu demee ba mënatul dem ñu teg ma coalition bi doon coalition Diomaye président ma ñëw fekk fa nit ñu bari ñu xeex ak ñun ndax boobu ñu ngi ci opposition jëlaguñu woon nguur ànd ak ñun ñu gañeendoo nguur mu am ci ñoo xamante ne nag ci période bu ñu ñëwee ànd ak ñun ndax dañoo bëggoon nekk candidat ñu gàllankoor leen ñu ñëw ànd ak ñun wala dañoo renoncé sax laat ñu leen di gàllankoor ànd ak ñun wala dañoo dabe feneen ñëw ànd ak ñun ñooñu joxe nañ def nañ ci coono def nañ ci seen alal def nañ ci seen temps kon ñooñu dañoo ànd ak ñun xeexandoog ñun ak fuñ ñu mën a dabee bu ñu am nguur kon ñooñu kenn mënul wax ne dañoo transhumé kon buñ ci falee kenn ñu andilaat wax joo xamante ne waxoon nañ ko mu ñaaw te kiñ ko gën a wax sax moom baale na dama yaakaar ne bu ñu nekkee du sulli loolu jafe-jafe yi ma fi fekk ak féewaloo kon du fi mos a dañ te kon day nekk pàccum senegal yu am solo parce que bu ma jëlee seen candidat kese waxuma ñeneen sax ñoo xamante dem nañu voté feneen am nañu un million six cent mille voix te du ñooñ kese ñooy Sénégal day nekk pàcc bu important yu Sénégal yoo xamante ne ci ni ñu waxee nii pour jël ci xayma rek Sénégal deux mille cinquante daanaka dañu leen di génne ci ñu mën a liggéeyalaat seen réew gëwuma loolu. par contre ku ne xam na Bassirou Diomaye Ousmane Sonko keneen ak keneen ci biir Pastef ci opposition bi ku politikul amul kenn koo xamante ne dinga def lu waroogu yoon. yaakaar ne jege pouvoir bu ñu nekk actuellement mën na doon protection pour yow parce que gëmuñu loolu kon ku ñëw bu dee dafa am loo xamante ne def nga ko li ñu lay defee bu bu jotee ñu toppee la ko dinañ la topp ci ñuy ànd ak ñun ci coalition ak ci ñoo xamante ne sax ci bu ñuy sos parti bi ñu ngi ca woon ba ci man mii nga xamante ne maay président de la république kon que ñu teg ay ay acte mu nekk nomination mu nekk ay décret mu nekk ay leneen ak leneen ay nit bañ ci kontaan loolu lu ma comprendre la lu ma nangu la ndax loolu mooy démocratie. merci beaucoup euh, excellence euh, ñu jox.